ñu ngi am mbégte dalal monsieur Assane Diop ministre conseiller bu président de la république monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu am nañu mbégte lool dalal la si euh, réew mi FM tey. jërëjëf euh, maa ngi tam maa ngi am mbégte di toog ak euh, yéen pour waxtaan tuuti ci li nga xam ni mooy yëngatu ci réew mi. alors ñu tàmbali ak président de la république bi mu sampee gouvernement bu bees bokk na si li mu leen euh, teg juróom benn priorité maanaam ay mbir yu jàmp yoo xam ne bëgg nañu taxaw si fii ak fukki weer ak juróom sénégalais yi mun a yëg euh, coppite ngir mun a euh, def loolu si lan la gouvernement bi wax a sukkandiku si sa xalaat en tant que ku jaar si si état. Ah, jërëjëf laaj bu am bu am solo la. xanaa jéem a fàttali rek ni président de la république ci. nda ndajem ndéew nda ndaw réew bi euh, bu yàggul euh, toog nañu wax na ministre yi ne leen euh, ngeen jéem a fexe li nga xam ni mooy soxla waa Sénégal yi ngeen jéem ci taxaw te mu gaaw ci biir loolu yi tamit am na yumu yumu yu jiital ko jëmale ko ci njënd mi ak njaay mi jëmale ko ci njàng mi ak njàngale mi jëmale ko ci mbirum sécurité maanaam kaaraange gi jëmale ko ci mbirum wér yaram yaram itamit waxoon na it ne ñu fexe ba ministère bu nekk euh, indil ko ci ci anam yu gaaw maanaam ci biir ci weeru octobre bi ñu fexe daal euh, octobre deux mille vingt deux trois indil ko ay programme yoo xam ni dana ko won ni lim leen wax ñu ngi ci. te itamit euh, président de la république. Euh, wax na gouvernement bi que ñu jéem a gunge secteur privé bi euh, bu réew mi euh, pour ñu seet nu ñuy taxawee waxtaan ba sunu réew mi gën a nekk ci réew yi nga xam ni ñoom la ñoo gën a taxaw ci àddina bi ko sunu entreprise yi ñi nga xam ne ñoo fi ñore seen alal bopp tey liggéey ñu seet ni ñuy fexee ba réew mi tamit di leen gën a jox liggéey pour ñu gën a ñu gën a taxaw. président yi tamit waxoon na ni ci waxtaan woowu ak ministre yi ne ñu fexe ba euh, liggéey bi gaaw. Euh, na bar lool euh, ndax dafa bëgg yëf yi gaaw a egsi ci ñu nga xam ni mooy. doomu waa Sénégal yi soxla yi bari na te bëgg na daal. ñu taxaw taxawaay boo xam ni liggéey bi day gaaw ndax nit ñi dañoo yàkkamti ndax coono am na te xam na ni coono am na te def ci bëgg taxaw nu mu gën a gaaw ñu ngi leen di xaar surtout si wàññee njëgu dund bi ak euh, lu yaas bi loolu tamit président def ko ay priorité euh, mais euh, tey yaakaar nga ni véritablement mun nañu am ay solution si problème waaw solution mun na nekk ndax loolu moo tax président de la par exemple ci li nga tudd nii ci seeraayu euh, euh, dund bi mu wootee waxtaan ak képp koo xam ni yaa ngi euh, yëngatu ci ci anam googu toog naa ak ñoom toogaay bu yàgg ak ministres yi yëpp ak ñi nga xam ni tamit ñooy yëngatu ci ci entreprise yi ak ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi ci ci ci ci ci ci ci di ci yëngatu toog nañu waxtaan te gis nañ ni bu ay buntu am na waaye nag bunt yi dafa laaj ku nekk def li nga war a def waaw ñi ñiy jënd di jaay dafa am lu leen war gouvernement bi dafa am lu ko war ñi nga xam ni tamit ñooy saytu di xool eh, njëg yi dafa am lu leen war donc bu ku nekk defee li nga war li la war rek dana mun a avancer ci avancer mu gaawee c'est que nag waruñoo taxaw rek ne gouvernement bi gouvernement bi gouvernement bi du loolu gouvernement bi am na lu ko war waaye ñi si des tam dafa am leen war na ku nekk def li la war bu ko defee fi mën a avancer. Mhm. alors ñu wax si beneen euh, jafe-jafe direction générale des impôts et domaines euh, ñaawlu recettes yi ni mu néewee par rapport ak li ñu waroon a jot nee nañu sax si juróom-benn euh, millions yi yi nga xam ne dañuy liggéey war a fay l'impôt lu yees benn million dong ñoo si fay alors loolu moom luy luy luy jafe-jafe dëgg ak lan moo si safara waaw mbirum fay l'impôt. nekk na loo xam jafe-jafe la ci réew yëpp. Euh, du Sénégal rek. du Sénégal rek waaye nag loolu rek du lay. Euh, ñun nañ jéem a régler suñu bos. moo tax euh, ci kaw loolu réew mi président la république ak ministère des finance ñi ci ak waa DG di ñu tudd nii yëpp. nga xam ni dañ ci war a taxaw dañu war a xool fan la jafe-jafe yi gën a nekk. surtout fexe ba nga xam ni. Euh, nit ñiy fay lempo gën a bari parce que bu fekkee ni ñiy fay lempo yées na million te lu met juróom-benn million war a fay lempo kooku wane na ni kon euh, am na lu des lu baree baree bari te loolu nag euh, dafay sooxal dafay sooxal sunu sunu économie sunu koom-koom kon nag bu dee te loolu dafa dafay nekk loo xam ni tam day yéexal liggéey bi nga xam ne gouvernement bi bi ko war a liggéey jëmale ko ci askan wi kon laaj na lool ñëpp góorgóorlu euh, taxaw taxawaay beneen pour di fay lempo pour que gouvernement bi mun a taxaw ci li nga xam ne mooy waree wareefam jëmale ko ci askan wi. ñu wax rek ni par exemple euh, ci budget bi di ñëw euh, ñu ngi fas yéene ci li ñu soxla ci Sénégal ci développé ko ci anam yu bëree bëri bëgg nañu téeméer bu nekk juróom-ñett fukki jóge ci sunu koomu réew loolu nag mi ngi njëkk a sukkandiku ci ci lu jëm ci lempo ak euh, ak juuti ak douane euh, loolu yëpp nag euh, buñ ko bëggee il nit ñi am neneen nu ñu taxawee neneen nu ñu xalaatee pour xam ni liggéey réew mi ku nekk sa loxo daf ci war a nekk gouvernement bi dafa war a taxaw organiser ko waaye doomu Sénégal bu nekk sa loxo ci biir bul xeeb ñaar téeméer yi nga war a fay lempo bul xeep ñaar ñaar téeméer wala ñett téeméer yi nga war a fay douane ñaar fukki bi ngay fay juuti loolu yëpp dañ ko war a dajale mu nekk li nga xam ni mooy taxawal mooy fexe euh, réew mi euh, taxaw ni mu war a taxawee pour ñu mun a jëm ca kanam mais est-ce que nit ñi tamit li ñu war a xam si l'impôt yëpp xam nañ ko si ndax ñu si bëri dañuy laaj xaas bi fan la jëm ñen ñoo koy jëfandikoo est-ce que tamit amul benn jafe-jafe si wàllu communication bi sensibilisation bi pour que ñu gën a gindeeku si l'impôt yi laaj boobu am na solo trop euh, dëgg bari xamuñu moo tax sawaruñu yaakaar nañ ni niñ koy waxee rek garaawul euh, euh, mais euh, dañ leen war a xamal parce que nit ki bu xamee rek dana mun a changer ni muy doxalee war nañoo gën a waxtaan ak askan wi gën leen xamal lan mooy lempo gën leen xamal lan mooy fay duwaan lan mooy fay juuti gën leen xamal njëriñ bi lu tax ak fu jëm lu muy jëriñ xam ni ci la ñuy fajoo fi la ñuy jàngale xale yi xam ni ci yu bari fa jaar euh, euh, te loolu nag dafa laaj waxtaan télévision bi baax na waaye di ko wax ci rajo yi di ko wax ci euh, sunu kàllaama réew bu ko defee ñëpp di ko dégg saa sune di ci bàyyi seen xel xam ne ah man kat war naa jóg fay sama lemp ndax lii ma soxla ci war a faju ci lay jóge eh, xale yi jàng école ci lay jóge eh, eh, mbedd yi ñuy defar ci lay jóge man kat alkaati yi nga xam ni ñoo yore sama kaaraange ci lay jóge ñu xam lu bari fi muy jóge xam ni foofu loolu dafa laaj ku nekk war a fay li la war ci ci réew mi kon nag dafa laaj waxtaan lu baree baree bare alors président euh, wax leen wax ni euh, téeméer juróom-benn junni ak ñeenti téeméer si milliards moom la ñuy xaar pour budget mille vingt trois ñeent fukk ak juróom yi war a jëm euh, si social soo déggee lu ni mel social ñor la lool lan ngay xalaat ne président moom la war a def wala loo koy digal pour mu njëkk ko def ci ci quarante cinq pour cent yooyu. waaw waaw dëgg la social moom lu ma lu ma ñor la parce que xaw ma lu dul social. Mm. sama carrière ci la ci la jaar. Mm. moo tax. Euh, boo waxee loolu sama xel day njëkk a dem ci mbirum santé wér yaram c'est pas parce que fa jaaroon en tant que ministre mais dañ yaakaar ni fi ñu ci toll euh, mbirum wér yaram nekk na lu lu am solo ci sunu réew euh, ku ne gis na ni président de la république mi ngi joxe naan lii ngeen war a def lii ngeen war a def lii ngeen war a def te ci loolu toujours da ngay seetlu ni affaire wér gu mi ngi ci biir gis nga ci biir loolu Euh, yi nga xam ni def na ko ci ay l'hôpital yu am solo yoo xam ni def na ko ci ci réew mi euh, def ko ci région yi euh, gis ngeen tamit ne dafa war a jël ay ñu war a liggéey ci l'hôpital yi gis nañ ni couverture maladie universelle cinquante pour cent yëpp dañ ko dañ ko jël def ko priorité Euh, ci ci ci ci ci ci budget sociale bi gis nañ tamit ne loolu bu weesoo tey euh, ñi ngi wax ni euh, lii dafa cher lee dafa cher kon tey lu nit nelaw nelaw war nga xam ni mbirum santé am na solo trop. waaye nag ah wax dëgg yàlla boo waxee santé. foog sa xel dami tamit ci njàng njàngale mi. Oh, priorité la ndax loolu mooy tax réew mi gën a mën a taxaw xam-xam dëgër. ñu mun a euh, jëmale réew mi ci kanam euh, kon loolu yi tamit nekk na ci priorité yi euh, waaye gis ngeen tamit na ki président de la république taxaw na ba ni gis na ni réew mi dafa cher dund gi moo tax li wér-gi-yaram di am solo yëpp di jàng di am solo yëpp gis na ni tey jii cheraayu dund gi wax dëgg yàlla dab mi leen di dab ci loo xam ne lu yàkkamti la Euh, def leen dab ci lu mel ni yàkkamti la moo tax tamit euh, mu gis ni war na waxtaan ak euh, réew mi moo taxoon mu woote bu yàggul ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi yëggatu ci lu jëm ci chéraay bi nga xam ni moom la dund gi te loolu yi tamit waa Sénégal ñun ñii ñëpp dañuy fàtte di seet loolu yëpp fan la jóge ndax ku ne xam na ni li ñuy wooyee changement climatique boo ko waxee ci Sénégal. lu ci bari sax duñ la duñ la xool. duñ la xaw a jàpp ne loolu concerné wuñu waaw ñu foog na ni fi tubaab yi la. te ñun ñii war nañoo xool suñu bopp ba gis ni taw bi fi mu nekk mi ngi changé. Mm-hmm. li koy changé mooy garab yi ci àll bi yëpp dog nañ leen def nañ ko këriñ taw bi manqué na loolu ci loolu mooy changement climatique. Mm-hmm. gis nañ tamit ne euh, euh, léeg-léeg ci biir changement climatique bi. Euh, Euh, euh, réew yi nga xam ni ñoo nekk ci réew tubaab yi ak yenn réewu Asie gis nañ leen ndox ndox di sonnale mhm. euh, loolu yëpp mooy changement climatique donc il faut ñuy xalaat loolu di def ay moytu ci côté boobu war a xalaat tamit lépp li nga xam ni mi ngi jëm ci ci li ñu jógee ci ci Covid bi Covid bi itam nekk na loo xam ni buñ ko fàttee sonal nañu trop. Eh, dañ ci war a bàyyi xel. waaye li ñu gën a war a bàyyi xel fi mu nekk nii te waa Sénégal dañuy yaakaar ni sori nañu. mooy guerre bi ñu tudd bi nekk Ukraine ñu koy tudd. diggante Russie ak waa Ukraine. kooku sonal nañu trop. parce que loolu moo tax tey lu bari cher. parce que eh, lu bari mi ngi doon jóge ci réew mi ñuy wax Ukraine eh, boo weddee xoolal waa France tey amuñu essence. Euh, fi mu nekk nii waa France ñi ngi jaaxle nu ñuy def ci seddaay bii di ñëw. Mhm. parce que gaz bi mi ngi doon jógee ci boor yooyu. Ah, loolu nu ñuy def nag léegi ba génn ci. te loolu yëpp Sénégal def ci war a bàyyi xel. xam ni danañ jonkonte ak ay jafe-jafe. Mhm. ci loolu lay jógee. kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax pour du mun di euh, xam ni euh, jafe-jafe am na waaye gouvernement bi mi ngi ci taxaw di ci def ay subvention yu bari. di ko tibbee ci alalu réew mi. Mhm. te loolu di ko jëmale ci loolu ah pour que mu bañ a métti ci réew mi bañ a métti ci askan wi te loolu nag dafa ñu xam ko bu baax te loolu yëpp mi ngi jógee encore ci l'impôt yi ñu doon wax léegi mm-hmm. euh, ñu bàyyi ci xel bu baax a baax alors Sénégal naka la war a def ci jamonoy crise bi ba xëy na mucc ci yenn jafe-jafe yi Sénégal en tant que réew même bu fekkente ni wax nañu taux de croissance bu 10 pour cent la ñuy xaar si 2023 FMI confirmé ko mais jafe-jafe yi moom ñoo ngi fi ba tey léegi réew mi ban taxawaay la war a am ngir mucc si loolu. Euh, d'abord dañoo war a xam lenn. Sénégal mi ngi bokk ci réew ji am ñi ñu néew doole. waaye ñun Sénégal duñu xool. réew yi ñu tollal doole réew yi ñu ëpp doole rek la ñuy xool ba nga xam ni lépp loo xam ni gouvernement def ko na ko rek daf koy daal di xaw a xeeb moo nag mais nag loolu moo tax tam gouvernement di gën di góorgóorlu di góorgóorlu ba sunu taux de croissance ñu koy xaar dix pour ci at mii di ñëw te loolu góorgóorlu gouvernement bi la ak gis-gisu président la république ak tamit joxañ yi mu joxañ pour ko sunu koom euh, gën a taxaw euh, ci euh, mbirum mbay mi mbirum càmm gi mbirum lépp Euh, entreprise yi yu bëree bëri mais itamit wéer ko ci li ñu yàlla euh, jagleel may ñu ko mu jëm ci petrole bi ak gaz bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey pour que sunu koom gën a yokk ñu gën a mun a euh, wuyu li nga xam ni mooy soxla askan wi te loolu yëpp day yokk doole sunu koom pour ñu gën a mun a avancer loolu yëpp nag dafa laaj ministre yi nga xam ni jox na leen ay ay directives maanaam ay ay dogal yu jëm ni agriculture euh, pour que mbay mi gën a suqaliku. Ah, ba moom suñu bopp si wàllu ñam gi. voilà nga mbay bi gën a suqaliku. ñu gën a moom suñu bopp ci lu bari. lu jëm loo xam ne mu ngi jógee ci mbéy mi euh, ak maraîchage bi euh, par exemple ni ma ko mën a waxee tey ñu fexe ba benn hectare gerte. au lieu ñu ci am benn tonne ak ñaar. ñaar téeméeru kile wala benn ton ak genn wàllu ngër ba bari ñu fexe ba di ci am ñetti tonne hmm. nga xam ni kon euh, béykat bi bu jaayee gerteem jaay euh, ngooñam dana mun a am lu mën a yegg ci euh, ci ci un million hmm. ak lu ko ëpp tuuti moo gën trois cent cinquante mille yi muy am ci ci une tonne hmm. ci un hectare fi mu nekk nii itamit lu boo demee ci lu mel ni càmm gi Euh, fi mu nekk nii ku ne xam na ni càmm gi ay ñaari litre meew moo ci gën a bari ci li ñuy am ci nag wu nekk euh, ci bés bu nekk léegi euh, xam-xam bi génnee na ba mën nañoo yegg ci fukki litre meew kon yooyu yëpp président la république daf see jox ay dogal ministère yu ko yore taxaw ci niñ ci war a taxawee pour que ñu ñi nga xam ni ñi ngi ci ñi waxee àll bi euh, muy ñi gën a bari ñu gën a mun a taxaw yokk seen am-am ci mbéy meeg càmm gi ñu am ak maraîchage bi ak tamit transformation bi euh, pour que ñi nga xam ne ñoo gën a bari ci réew mi seen koom-koom gën a bari te loolu yëpp président la république daf cee joxe ay ndogal joxe ci ay digal te ministres dañ ci taxaw niñ ci war a taxawee ci nu mu gën a gaawee. kon daal yaakaar mën naa am suñu la déggee. yaakaar bu baax dafay am sax. parce que euh, dogal yi nga xam ni yëpp war na nekk. président de la république joxe na ko te mi ngi ci taxaw di ko xoolal boppam malgré que premier ministre mi ngi fi ak ay ay yoo xam ni tamit ñoo koy xoolal pour teg seen bët ci li nga xam ni moom la joxe ci diggal pour que li nga xam ni yëpp war na màgg ci réew mi war na yokk koom-koomu réew mi mën a nekk ba réew mi euh, yokk ni mu war a yokkee. ñaxtu yu bari lool ci réew mi tey euh, ministre euh, de l'emploi et du travail bi nga nekkoon lan ngay digal ñi fi nekk tey pour ñu gën a mun a gérer front sociale bi ngir dal am ndax bu ñëpp di ñaxtu moom bu yàggee yëf yi dana jaxasoo. waaw li nga wax ni am na solo. ndax luñ ci munta def. lu munta doon. te dal amul ci réew mi. coow li bari. grève yi bari. xuloo bi bari ŋaayoo bi bari. laaj lu lu mën a am ak lu munta am bari du sotti moo tax li ñuy wax paix sociale maanaam waxtaan ba juboo ci lu bari am solo ku ci nekk war nga taxawaat taxawaay bu dëgër samp waxtaan wu dëgër yaatu yaatu bu bu bu bu ba nga xam ni euh, ñuy sottante xalaat di waxtaan ci sunu biir pour mun a moytu ngiiroo bi ak ŋaayoo bi mun a moytu problème yi te loolu mun nañ koo am incha allah ñu xoolandoo euh, soxla yi nga xam ni mooy soxla ñëpp liggéeyandoo pour régler yooyu te loolu mën na nekk Sénégal loolu la xam te ñun ñëpp bu ñu àndee jëm ci loolu ah yaakaar nañ ni danañ ko danañ ci mun a yegg waxtaan euh, euh, diisoo mooy Sénégal na ci Sénégal sax Euh, dal googu mun a am ñu yegg fi ñu bëgg a yegg. jërëjëf monsieur le ministre amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. jërëjëf euh, ñu kontaan ci waxtaan bi. parce que lii mooy tax tamit euh, réew mi ñëpp delloo si seen xel. ci li nga xam ni moo ñu war ñun ñëpp. te yéen taskati xabaar yi da ngeen ci am solo trop. jërëjëf euh, monsieur le ministre Assane Diop euh, nekk ministre conseil ci président Macky Sall amoon nañu mbégte lool dalal ko ci matinalu réew mi FM tey gërëm ñu doon déglu ñëpp Anna Thiaw ñu delloo la lengay nga wéyal bloc d'information bi.